Amisi Itaba Hakima Sayba Laago Faramaren Kella parmi nous yéen a ngi ànd ak suñu people TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defe saa su ne ah tey nag ah maa ngi ah, nuyu sénégalais yëpp di wax ko ku nga xamante ne moo nekk ci vidéo bi naan wuy wuy yàqu naa wuy wuy ay waay yàqu na ay waay ay waay nañ ko arrangé wuy yàqu naa ay waay ay waay lii rek laa yor lii rek laa yi ay way ay waay yor ay waay yàqu naa muy yàqu naa ay waay lu may wax njaboot ga ay waay nañ ko arrangé rek euh, c'était juste pour wax leen ci vidéo boobu nga xamante ne mu ngi daw ah ñu koy wax Bougazelli ñu wax ne rek suñu njiit yi nañu gën a góorgóorlu rek te moytu rek di ñu loo xamante ne rek day tax ñun ñi nga xamante ne ah, ñoom ñoo war a nekk ay exemplaire ci suñu kanam bu ñu demee bay rabase seen bopp bi wàcce seen personnalité ana ñun fu réew mi jëm ana ñun fan la jëm koo xamante ne dañu ne ah moom mu nga nekk député ñun fu jëm fu suñu réew jëm bu ñu demee ba ñooñu nga xamante ne ñooñu waroon protéger di def ay affaires yu ridiculiser di ridiculiser seen bopp ñun suñu réew nag nee naa la mu ngi commencé handicapé ci ay valeur yu baax kon nañu sàmm jikko yi te sàmmanteeg jikko yi nag foofu laay tëjee ci sama ay chroniqueur tey di wax ne ah wuy wuy yàqu naa ay waay waay nañ ko arrangé ay waay yàqu naa wuy wuy wuy ay waay phobie yi lii rek laa si yor ay waay lii yàqu naa kon tey sama ay chroniqueur maa ngi remercier ñëpp di wax nag bu kàddu gi ñaawee rek ah bu ma kenn commentaire ba saaga ma ndax sama xalaat rek laa ci wax te yaakaar naa ne citoyen laa te am naa droit wax ki réew mi ñëpp dégg ma maa ngi remercier ñëpp di wax ñëpp I love you so much thank you bukki bëgg yaatu bukki njuuro bukki bëgg yàpp samba bukki bëgg yàpp samba bukki njuur bu dee yow mi ma jiite nekk dëppite yow yaay wàcc yoon bi nga war a aw man xaw ma lan laay sama dëkk ñàkk ay valeur bukki njuuroo eh bukki bëgg yàpp samba bukki njuuroo bukki bëgg yàpp bukki njuuroo bukki bëgg yàpp fan la nga nekk député yow ma fekk ci ay faux billets nga di waatal ne moomoo ko wati sa du dëgg yow yaay bukki njur samba dara du la doy ci àddina amoo ngor amoo eh, bukki njur samba bukki njooro ee bukki bëgg yàpp bukki njooro ma ne bukki bëgg yàpp ee bukki bëgg yàpp woy woy fu ma jëm woy tey ma de fu ma jëm woy dee na woy fu ma jëm woy dee na woy fu ma jëm woy dee fi sax interdit la bu fa jaar lépp ci sa jaaxleeg sa jàq yow xamatoo lan ngay wax ci kilifaak magum jëm ñaaw na bukki njuur sàmm yaay ma ëpp ee eh, bukki njuur dénk la sama réew te aw ma lu ma neex jox la sama réew ne la doxalal yow nga wàcce ànd ba nga nekk tegu ci beneen yoon sama doole jotewul pour ma wax la li ngay def tu dëgg yow ñun suñu réew manqué yi valeur Sénégal njaay fi ñu jëm yow bukki njuura ngay def lu ko neex